tiny ocean koita. I couldn't talk him. You kai. I ate. Zem pasa imbuku. Ih, babi dafa cang. ay man ku ma sëf. waaw yëkkatiwaatal ci kaw anglais bi. dëgg yàlla maa sonn mu woy wax dëgg yàlla yow tey am nga lu bëri si man. damaa taayal fundoo sama yëpp sëf ñoom yus nañu wala ñu ne may def. dañ maa teg bët. ñoom ñoo la teg bët. ñoom Youssou Ndour liggéey ñoom Wally sekk ñoom paab Diouf. yéen a dégg leen nee na ñoom euh, Youssou Ndour ñoom Wally Seck ñoom Pape Diouf dañ koy liggéey dañ koy sëf maanaam moo tax fan yi yaramam dafa diis te baatam tamit neexut. waaw ba mënu mënu ma dara. mënuluñ la hmm. bàyyi leen sama xarit bi. naan leen euh, li naan naan euh, naan naa wane big wan xatta sama mbokk naa de wane big wan xatta <laughs> loolu mooy. waaw wane bi kon xatta comme comme nga ne bonjour ñoo bonsoir. Ah, <laughs> name is Ouzin Keita si mm-hmm. allemand si allemand gudden taaka euh, euh, si naal wane big wane xatta si mm-hmm. français bonjour bonsoir comment tu vas ça cing cing maay cing cing.